maa ngi sant jeunesse sénégalaise maa ngi sant sénégalais yëpp. bi yàlla ubbee suñuy bët bañ xam ni que lu bari. ah man de sama bos am naa ci firnde parce que tribunal daan na ko juróom-benn weer yoo xam ne nee nañ ko. waratoo wax lu dul dëgg. mun nañ jàpp ni ko Ousmane am na juróom-benn weer yoo xam ni waratul wax lu dul dëgg. muy kooku li nee na du ma laal fukki dërëm. loolu ci kanam la. firnde amati na kii wax na lu dul dëgg ba tribunal jox ko këyit ku loolu dal ci diine mënatoo jiite ku loolu dal ci diine mënatoo seede ku loolu dal ci diine mënatoo wax lu crédible donc bu ñu woo nit ñi ci ay waxi nax sa kàndal ñaari bàkkan yi ci rot perte nañ ña ca gaañu woon ca bu njëkk ba perte nañ waxloo na fi ay nit ay xale ay ndaw ay borom kër ba tey ñi ngi ci kaso bi moom mu tudd leen détenu politique te ñun ñëpp xam nañ ni ku ci bind ñu dem ci kaso bi yëpp am na lu ñu def ñii dañoo def appel à l'insurrection ñii dañoo saaga ay nit ñii dañoo jéem a taal ay yëf yi nit ñii dañoo jéem lor réew mi ñii dañoo jéem a naxsaayal kuréelu réew mi donc nañ delloo si xel yi yàlla mooy joxe nguur comme ni mu ko waxee démb yàlla mooy joxe nguur ku bëgg nguur tax wax lu dul dëgg yàlla dina la weer ku bëgg nguur tax yee fitna yàlla du la ko jox donc nañu delloo ci xel yi nañu sàmm liñ fi fekk ku ci nekk am na droit dem bokk sànq dama toogal kenn koo xam ne sama xarit la mu paas na beneen nit koo xam ni ñoo nekkoon mais tey nekkul mais jàmm lañ séq te li ci doy waar mooy réew mi yëpp ba ci opposition bi tey ñëpp xam nañ ni que kii li muy def pour njariñu boppam rek la bu dul njariñu boppam rek day saaga ñëpp am na ci koo xam ne tey mi ngi wetti dina xam boppam maa ngi ko dégg suuf ba léegi ñu weddi ñaari at ci ginnaaw ñetti at ci ginnaaw avant muy ànd ak moom dañu toog parce que séq nañ ko donte ànduñu séq nañ ko ma ne ko waa ji boo àndeek moom du nit boppam rek lay xalaat tey amaat naa dëkk donc nañu xeex ci politique nañ xeex ci programme bu dee ci werante njëriñ booy amal réew mi mais ñoom ñiy wax ñi ci ëpp jox nañ leen ay mairie yu ñuy wax ñi yëpp tey mairie yu mag yëpp ñoo ko yor at ak juróom at ak ñeenti weer a ngi nii ñu yor mairie yi waaw bu ñu mënee dara nañ ko fa def bu ñu amee bu ñu wóolu pour ñu dem samp ko nañ ko dem samp ñun ñu samp suñu candidat ñu werante ci ku nekk lan ngay defal Sénégal ñun liñ defal Sénégal mi ngi ni fàng dañ koy dañ koy gis ci ay bët foofu lañuy ñuy yóbbu wax ci mais pas ci kaay leen taal kaay lañ def leneen loolu ñoo ko ko dàq may xam nañ ni du jur dara man ministre de la jeunesse ku weddi li may wax ay vidéo ñu ngi YouTube may dégg mu naan noo jeunesse bi man la jox bopp ah xanaa kon ñun jox yoon woon bopp milieu de jeunes yi xanaa jeunes yi dajaloo dem parcelle da joxuñu ñu bopp mais du loolu werante bi kay mooy non yéen terre bi ngeen def baaxul wala warul woon jaar fii walla liggéeyu ndaw ñi defu leen ci lii defu leen ci lële mais kaay leen dee parce que man maa war a dem kaay leen dee parce que man maa yor projet bi nga xam ni yaakaaru Sénégal di ko comparer ak ñoo xam ni na famille ñooñu xool Thomas Sankara jiiñu ñu ko liñ koy jiiñ nii Mamadou Dia jiiñuñu bo moom liñ koy jiiñ nii ak liñ ko toppee révolution day am soubassement du discours politique rek du discours populaire rek ndax day firndeel suñu waxu démb suñu waxi bërki démb ak suñu waxi tey ci suba ñu ci bari ñu ngi doon laaj lu tax mu yóbbu ko tribunal ñu ci bari ñu ngi doon laaj lu tax mu def appel dafa di moom li muy utal boppam man dama koy utal sama bopp moom li muy ressentir man dama koy ressentir ma gëm ni ko doomu aadama la donte bokkuñu bëgg-bëgg donte bokkuñu jëmukaay donc ànduñu mais dama jàpp ni que bu ñuy xeex nañ xeex ci dëgg bu ñuy xeex nañ xeex ci njub bu ñuy xeex nañ xeex ci worma dégg naa ni moom waxu ko mais ñi ànd ak moom dañ koy wax mooy yi daf ñuy attaque dama koy firndewaat tey fii nii man lu ma wax ci nit giñ naa ci yàlla ni ko buñ ma woowee ma indi firnde bi ak lu wax ji dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër ma wax ci nit mukk loo xam ne aw ma firnde bi man ngaa d'accord nag ndax war nañ koo wax wala waruñu koo wax mais man duma jiiñ sama moroomu doomu aadama donc lépp lu ma mas a wax ci moom am na fu ma ko teg lépp lu ma mas a wax ci moom am na firnde bu ma téye mais moom daf ma tuumaal ni moom ci boppam yor na rapport boo xam ni daf ma épinglé bu IGE mu dem polis dëggal ko lu mel nii mas na ma dal ak njiitu politique boo xam ni moo nekkoon pratiquement opposi opposant bi gën a mag ci ñun muy le président Idrissa sec mu wax ni que Mame dafa woo hôtel Palm Beach def pression ci ñoom pour suñu cadre yi bañ fa tenir séminaire ba mu ko waxee ma jël huissier dem ut version directeur bi jël déclaration bi cité ko directement ba mu xamee ni la mu wax dafa juum yàlla seede na ni que dafa wax ni que dafa juum ma arrêté procédure bi parce que nangu naa nag man maay politique nangu naa ni man maa jiitu nangu naa ni man maa bokk ci benn équipe nangu naa ni man maay joue benn rôle ci équipe équipe bi doon majorité présidentielle may xëy di wax ci samay moroomu politicien mais di sàmm li may wax mu ànd ak ma ba pare doon dëgg donc bu keneen waxee ci man nangu ni dafa juum sama yar ak sama ngëm-ngëm ak ñi ma àndal nangu nañ ni bu nit ki juumee wax ni dafa juum dangay dellu gannaaw mais yéen ñëpp seede ngeen ci ni ba mu ko waxee nanguwul sax assume publiquement nekk dafa juum ci rapport bi muy wax parce que police la waxe ni que dafa juum ci rapport IGE ak IGF déggul leen ko benn yoon mu toog ci point de presse ni dama juumoon ca pourtant ba ma accusé ak ba ñuy dem tribunal def na ci juróom-ñetti point de presse yoo xam ni waxi politique rek la ciy wax noo dañ maa bëgg faagaagal dañ maa bëgg defal lim seq ak man day xewewul ci nekk xewwul feneen lim seq ak man ci mbedd mi la yéen ñii ñëpp ngeen doon ci seede moom moo ko waxal boppam moom moo ni am na rapport moom moo ni téye na rapport moom moo ni ñun li ñu jaaxal dootul ndax rapport yu mu dootul euh, yan kayit la yor mais kan moo ko koy jox ku mel noonu nag bu la tuumalee nga am njaboot am jabar am soxna am ay wayjur am ay rakk am ñooy àndal am foo bokk ah man de jàpp naa ni loolu waroon na tax ma épuiser procédure de droit yi am ci réew mi yépp loolu moo tax tey ñu egg ak moom fii nii muy première instance muy deuxième instance indiwul sax début de preuve Ousmane Sonko déposé wul sax këyit buy wane ni que moo wax loolu lu dul di jéem a li di jéem a wax ñii dañuy politique ñii dañuy def lii ñii dañuy def lii. lii ma fi wax nii nii lan moo ciy politique li ma koy toppee moom moo ko wax ci coobareem moom moo wax lu amul donc tey ñi ngi sant yàlla bi ñu tribunal joxee dëgg tey ñi ngi sant yàlla bi police defee réquisition ci ñaari ci corps de contrôle boobu di IGE ak service boobu di IGF e. tey ñi ngi sant yàlla bi suñu mbokk sénégalais yi xamee ni IGF e sax bu defoon rapport ci Prodac man mënumaa jàpp parce que tey leer na ci bopp ñëpp ni que man musuma nekk directeur u leer na ci bopp ñëpp ni que mus IGF bu doon def enquête sax mënta jàpp ministre leer na ci bopp ñëpp ni que xaalis boobu mënuma cee jote mënuma cee egge mënuma cee laal ba di ko jël démb nag bi muy wax dégg naa mu ni dafa am njaboot dañuy torturer njabootam mais moom na xam ne ni que torturer na sama njaboot moom na xam ni que dama am ay doom yuy jàngi école moom na xam ne ni que baatam fa mu egg ci àdduna bi baatu journaliste yi ci njëkk a sax eggu ci donc na xam ni tooñ na ma ba ci kanamu yàlla tooñ na ma ba ci kanamu yàlla may sant nag sama njaboot di ko commencé ci sama soxna samay wayjur samay doom ñi nga xam ni dañuy dugg ci internet bi di liir di xool parce que li ngeen di wax mais ñun dañu am njaboot maanaam ay doom yu mag yuy jàngi école fii ci senegal di dugg kaar di ànd vague di dem di dem di dem ci seen kër maam di dem seeni kër nijaay di dem ci géej yi di ànd ak leneen ñu xam ni ko samay doom lañ moom mu taxaw ni que am na firnde buy wane ni man damaa sàcc moom mi ngi xalaat njabootam waaye xalaatul suñu njaboot lii day wane nit ki ban genre nit la loolu xalaat nag wax nañ ko mais dañoo gëm ni que dëgg dëgg ala kulli àll day am ku foog ni que dangaa làq ngërëmal yàlla wala dangaa féete nit wala dangaa féete fenn wala ay nit dañ laa topp wala ay nit dañ lay wax ala àll ku nekk ci lu dul dëgg nii mu mujjee nii ngay mujj mooy daanu bu metti ngay daanu la ko ca dal nag moo ko sooke boppam la ko ca fekk moo ko sooke boppam di remercier le peuple sénégalais di remercier Sénégal bi yëpp kilifa diine yi kuréel yi nga xam ni ñoom ñëpp seedeel nañ ñu seenu jàppale da dox ci mbedd mi sax romb nit mu ni la bul bàyyi de bu fekkee defoo bul bàyyi ndax bëgg nañ dëgg xam bëgg nañ dëgg feeñ bëgg nañ ñu xam vingt-neuf yi ndax liñ ciy wax am na donc moom bu fekkee lor ma moo ko taxoon a jóg alhamdulilah tey satal na sama der bu fekkee yàqal ma moo ko taxoon a jóg alhamdulilah tey mën naa siggi ca yàqulew ma bu fekkee yàq sama der moo ko taxoon a jóg alhamdulilah tey waxam ak tuumaam tax na ba àddina bi yëpp xam ne li que liñ daan wax ci réseaux sociaux yi du dëgg ndax indiwul benn këyit indiwul benn firnde indiwul dara ca moom toog na ci veyu procès le 16 mu ni këyit yëpp mi ngi ko yor lii ñuy def nii yëpp ay caaxaan la beneen parti bi nag bi may wax mooy Sénégal lañ nekk mu am fu mu toll. moom mu am lu mu fi tekki mu ni day ut réew mi mais kuy ut réew dangay sax ci dëkk kuy ut réew doo sos kuy ut réew doo indi fitna ci sosal bii mu ma sosal ci wax dëgg bii mu ma waxal ñaari bakkan faatu nañ ci lépp doon coobareem démb dégg naa ko mu ni man bu may dem fu ma neex laay jaar police du ma wax mais man bu may dem sama oto laay dugg bu baree ba bari benn oto moom mooy topp sama rakk lay doon samay nit ñi nga xam ne ñoom laay àndal ci politique bu xeex jotee ñoom laay àndal xeex dama naa leen fexe leen ba bu leen sax dajaloo ñu ñëpp nañ joxante rendez-vous foofu et ñu def attroupement te yàlla seede na ni lii muy def nii man maa ko dàq parce que maa ko ko njëkk a def maa ko ko dàq maa ko ko njëkk a def mais mosuma kaa dox kenn musta xam fan laay jaar ba dem tribunal dinaa fexe nag ba heure bi bu jotee ma ñëw waaxu teg parce que dama jàpp ni que man lañ tooñ moom bu xëyee wala balaa muy dem dina fexe ba réew mi yépp defe ne ni que dañ koo bëgg a sànq dina fexe ba képp ku bëggoon a def lu bon dangay xaar ba jour ba muy woote nga programme ko ci parce que moom ci loolu lay woote ci du pays de droit lañ nekk mu am ku jiite réew mi am ay kuréel yu samp réew mi ñu ñëpp leen war a jox cër ma nekk naa juróom-ñaari at ministre ci gouvernement nekk naa ñeenti ak chef de cabinet du président de la république bu ma tribunal woowee damay dem bu ma policier arrêté damay taxaw bu ma bëggee def sama émission politique yéen nii laay woo ma wax sama xalaat ci wor ma laa koy wax kenn mësumaa dégg ma wax lu ñaaw tuumaal naa ay nit de mais ku ma mës a yor naa firnde yi xeex naa politique de mais ku ma mës a xeex ci dëgg laa ko teg muy ci suñu camp wala muy ci beneen camp parce que dama jàpp ni que politique ci noonu la war a laloo waaye doo ko teg ci féewale doo ko teg ci xàjjale doo ko teg ci tasaare doo ko teg ci yàq xelu nit ñi doo ko teg ci wax lu dul dëgg ba pare di woo ñi ñi ci fitna ëpp ñu ay nit parce que heure bu élection amee ñoo koy gagné boobaak léegi néew ma amul ay nit de mais ëpp ñu ay nit te pourtant fii mu toll nii nii tolloon nañ fa e xeex bu jaar yoon ak xeex bu ànd ak worma ak ngor moo tax tey ñaawoo amul suñu diggante dama koy faral di wax opposition démb bi ña sa nekkoon ak ñun dañuy toog di waxtaan c'est parce que fii Sénégal fexe nañ ba même bu ngeen déggoowul même bu ngeen àndul dina am worma bu ci am te kenn du wax moroomam lu ñaaw lii fi am ci lu bees moom moo ko fi indi moom moo fi indi waxi waaso moom moo fi indi waxi diine moo fi indi waxi région moo fi waxi indi leneen maa ngi ñaan suñu mbokk yi ñu bàyyi xel ci foofu mu bëgg yóbbu politique maa ngi wax suñu mbokk sénégalais yi ni ko ay jullit akkan lañ ragaluñu président ragaluñu police ragaluñu gendarmerie neguñu ba yor nguur taxaw taxaw bii nii dañ ko daan taxawee te ba ñuy toll fa mu mais daañu ñu woon def lu ñaaw daañu woon wax lu ñaaw daañu ñu woon sos bu ñu topp politique ba yàq li fi suñuy maam bàyyi fii dama koy faral di wax ay kilifa diine dañoo bokk ci ñuy samp réew mi kenn du fi wax waxi waaso parce que boo demee kër Serigne Touba. exemple laay joxe doomam day jël jabaru njaago am jabaru séeréer am jabaru naar am jabaru njaago ñu jur ay doom ñu doon seeni sët teyal leen bokk fépp nga dem kër maam alaaji loolu nga fay fekk nga dem kër maam loolu nga fekk nga dem ci këru diine boo dem dañuy am taalibe fépp bëggoon na tabax réew mi tabax bu sell moo tax seen wóllëre ak ñeneen ñi nga xam ni sax bokkoowuñu woon xeet wala bokkoowuñu woon région wala bokkoowuñu woon làkk dañuy dañ fay jël soxna wala ñu jël seeni doom yu jigéen maye fa soxna tey senegal kenn mënta wax fii laa dëkk kenn mënta wax fii laa dëkk ñu ñëpp nañ ko xool ñii jabaru séeréer lañu am ay tukulóor yu am jabaru séeréer ñii ay joolaa yu am jabaru tukulóor ñi ay joolaa yu am jabaru séeréer loolu lu waa ji bëgg a yàq parce que moo fi indi wax jooju e jàpp naa ni jaru ko juróom benn weer yoo xam ne nee nañ ko waratoo wax lu dul dëkk nañ jàpp ni ko Ousmane Sonko am na juróom benn weer yoo xam ni waratul wax lu dul dëkk muy góogali nee na du ma laal fukki dërëm loolu ci kanam la en tout bu ma fayul am na contrainte par au maximum après ñu xool